الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يا عبد الله إذا سألت فاسأل الله إنها وصية غالية خرجت من فم الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فارفع هذا الشعار ولا يتألق قلبك بما عند البشر لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تغلق الله يغضب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب إخواني من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد إذا فزعت بمحبة الله فلا عليك ما فاتك من الدنيا فإن الله إذا أحبك فقد دمنت سعادة الدارين إخواني إن من مشاكلنا تعلق القلوب بغير الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa bokk ci ndénkaane yum ñu dénk yu gën a seer yu mu génne ci gémmiñam jëmale ko ci ñun mooy ñuy aj sunuy xol ci yàlla suñuy ñaan ñu ñaan yàlla bu ñuy làqatu ñu làqatu ci yàlla bu ñu amee aajo ñu fëx jëm ci yàlla mu ne isa saalta yow jaam sooy ñaanati di dékk loxo ñaanal yàlla sooy sukk ndimbal nga bëgg ndimbal soxla ndimbal mu ne fastain billah bokk na ci problème yu gën a rëy yu ñu am ñun waa Sénégal mooy xamuñu yàlla semaine bi passé ku nekk ci ñun teg na bët bu fekkee defoo ko yow teg nga ci bët bu dee yow laa wax mi gàddu sa sijaada tey julli si jumaa bu dee defoo ko teg nga ci bët wala nga dégg ci sa nopp ku nekk ci ñun root juróom-ñaari paanu ndox sotti ci buntu këram ku ko gisul ci ñun rek dégg nga ko wala nga teg ci bët wala nga def ko su fekkee dañoo ragal aw ay ba soxla jàmm kan mooy maye jàmm waa gunaas lan moo leen toxal waa Bagdad lu leen toxal lan moo toxal waa ñetti mbaar lan moo toxal lan moo toxal lan moo indi plan jaxaay ndox kon ndox amul jàmm kon ñi koy sotti ak ñi ko digle fan la yàlla nekk ayna allah ana yàlla ana yàlla ibrahima keroog bañ ko takkee yeew ko di ko sànni ci safara kan la woo pourtant safara lan moo ci gaaw ndox yàlla mënoon na taw safara si fay tout court mu jeex waaye xoola yàlla dafay wane kattanam di wane ne doomu aadama yi du fuñ ko yaakaar foofu la yàlla bàyyi safara si di tàkk mu ne wa qulna ya naar kuni bardan wa salaaman ala ibrahim fa araadu bihi kaydan fa jaalnahum al asfalin e yow safara si mu ne a mu ne ko bul laal ibrahim bul ko laal sunu borom subhanahu wa taala mu ne gaa yi ñoo namoon ci moom pexe ma suufeel leen Moussa keroog ba ko Firawna sësee ci ndox mi nekk ci kanamam amul fu mu jëm su ñëwee ci kanam Firawna rey ko bu duggee ci géej gi lab lan la mooy fexeem ci lan la laqatu ci ndox ci yàlla bi gaa yi tiitee ba ne ko ne tey ñu dee inna la mudrakun mu ne leen kalla inna ma'i rabbi nit bu tiitee day dem ci yàlla nit buy ñaan day ñaan yàlla mais ndox dëppi ba ñu juddoo ba léegi saa yu ñu xëyee dinañ gis mag ñi di sotti ndox ci buntu kër yi mais ban ban changement la Sénégal am chaque jour nga xëy di sotti ndox sa buntu kër te ngay ñaani ndimbal nga taxaw di yalwaan di laaj di ñaan di saraxu am ay problème léegi ndox moomu yow doo xalaat li ngay sotti du loolu yàlla la demal ci yàlla fa iza saalta fasalillah ñaanal yàlla demal nga jàpp jullil ñaari rakk sujootal ñaanal yàlla say aajo mais sunu sunu problème mooy xamuñu yàlla ñun ku tiit day dem ci moroomam ñu koy defaral ay mbir ku feebar day dem di wëri garab turoo soow turoo deret da ngay dégg sax ci aadaay waa réew ñu naan dañuy ñaanal ndakaaru jënd ay nag di ko dugal ci géej gi wala di ko rend ci géej mais fii xërëm rek ndox bu ñu sotti woon ku nekk ci ñun téeméeri paan sa buntu kërit amul benn njëriñ ndox amul jàmm yàlla mi moo acca ndox yàlla mi bind ndox ndox mbindeef la comme yow nooy bàyyee borom mbindeef di jaamu mbindeef ndox mbindeef la comme yow ndox amul lu mën amul lu muy def amul lu muy dindi safara ku nekk ci ñun xam ne day lakke wala du lakke mais keroog bañ ci dugalee Ibrahima lu tax lakk ko te pourtant safara bi fayul matt yi dañoo tàkk ba jeex Ibrahima toog ci suuf toog ci biir di naanul ataaya lu tax lakkul parce que yàlla moo ko jox ordre. ndox amul njëriñ lu dul yàlla jox ko ordre kenn ci ñun amoo loo mën lu dul yàlla jox la ordre sa mën-mën ak sa kattan doog a feeñ yàlla rekk moo mën koo fi dégg ñu ne mën na déglu ko seetaan ko xool koy waxtu xool koy fan xool koy semaine xool koy weer xool koy at bu yàggee nga dégg ñu ne mu ngi nii dañ koy sang dañ koy sang dañ koy yëkkati bu yàggee nga dégg ñu ne bàmmeelam a ngi nii kon mënul dara parce que mbindeef la lu dul yàlla du dara yàlla rek ngalawaay ñun réew mii nañ jublu yàlla yàlla moo nu manqué ci sunu lépp day feeñ ay aada ay bidaa ay sarax yoo xam ne teguñu ko fan dañuy sonn loolu du diine jullit pour mu nekk jullit foog diine leer ci boppam ixwaani farfa haza shiar ne nit ñi yëkkati yàlla nekk seen kanam yëkk seen ginnaaw seen ndeyjoor seen càmmoñ yàlla féete leen fépp na nit ñi di yëkkati mbir moomu wala tata'allaq qalbaka bi gayrillah bu ñu ajati sunuy xol ci ku dul yàlla lu dul yàlla olof yi ñoo ko jàngale ñu ne lu dul yàlla neen la loolu dañ koy wax rek mi gëmuñu ko te fekk loolu dafa ko pas-pas xam ne lu dul yàlla du dara demagoo fenn jéggeegoo benn tànk amagoo benn diine nekkagoo benn jullit fekk defoo sa kanam yàlla nekkagoo jullit da ngay sonn bu yeboo ngay fanaan di naafila bu yeboo ngay fanaana woor bu yeboo nga toog di dugg dugg ci jàng alquran ba tas fekk sa xol bi yàlla jiituwu ci mujj ci lépp looy def nga xalaat yàlla da ngay sono sa bopp te loolu moo nu dal di julli di waaxu dugg ci diine fekk dara pas-pas yi wiruñ ixwatal iman waykat ba nee na laa tasalanna bani aadama xaajatan fasali lazi abwaabuhu laa tuxlaqu nga la waay yow boo amatee aajo bul dem ci doomu aadama yi benn waay dafa tëdd guddi gént ñu ne ko jógal barab sàngam am na jaamu yàlla bu fa nekk demal nga jàppale ji ko mu jëkk mu jóg moom waajooju sangu dafaru yóbbu otoom ci gaaraasam sol ko ceeb ba mu fees sol ko suukar ba mu fees sol ko diw sol ko meew sol ko saabu lépp lu doomu aadama di soxla ci roson waa ji sol ko ci kat-katam ba mu fees jëm kër kiñ ko sant mu ñëw fëgg waa ji ubbi mu ne ko lii lépp yaa ko moom wàcce ba mu set waa ji daal di jël dugal ci magasin am mu ne waa ji mu jël carte visite jox waa ji ne ko boo amatee problème woo ma ci numéro bi rek ma ñëw rek la sa problème mu ne ko déedéet soxlawu ma numéro bi ki la teree nelaw kooku rek laa amal affaire man man du ma wax ak yow ki la yee ci ay nelaw sant la lii nga def ko man kooku laay waxal man du ma wax ak yow kooku mooy kan kan moo yee waa ji ci ay nelaw kan moo ko ne yóbbulal waa ji lekkat naan kan allah ayna allah ana yàlla ñun ana yàlla doo gis sénégalais bu tiit mukk ba dem jàpp julli ñaar raaka jublu yàlla balaa ñuy dem ci yàlla rek même ku feebar bu ñu wareeg yow ci garab yi xamb yi xaaw yi hôpitaux yi ba sës mënatuñu dara ñu ñëw teg soo leen ne waaw léegi nag ñu ne yàlla moo fi des léegi de yàlla la ñuy xaar nag gis nga dernière minute sax la ñuy ñëw ci yàlla dernière minute lépp rek même ku ñu sàcc sa dara balaa ngay def dara da ngay dem ci ñu gisaane xool xamb yi ba yëpp jeex nga xam ne mën a trop pexe a feeñu nga doog ne ah xaaral nag léegi ma bàyyi koog yàlla chaque jour yàlla mooy sunu dernier problème te yàlla moo war a njëkk allahu akbar foog ñu defaraat pas-pas yi feek jiitalu ñu yàlla dekk gu ñu ay jullit la tasalanna bani aadama haajatan fasal allazi abwaabuhu la tuxlaq bul ñaanati nit deel ñaan borom kër gi nga xam ne buntam du tëju ba koy yàlla koo fi gis buntam bu guddee da koy tëj buy génn day tëj bu ragalee day tëj allah subhanahu wa taala moom dong la ay buntam dul tëju kon dee ko yëkkati say loxo tax moom ay buntam du tëju te wa bani aadama hina yusalu yaxdabu doomu aadama sax jamono ju nekk nga koy dëkk loxo di ko dëkk loxo di ko dëkk loxo day gis un jour mu ñëw mere la parce que da nga bëri looy ñaan yow da nga bëri looy jàmbat da nga bëri looy ñaxtu amma allahu subhanahu wa taala moom suñ ko ñaanul mu mer du benn de doomu adama boo koy ñaan toujours daf lay mere yàlla boo ko dul ñaan toujours da lay mere du benn lan la wax maa ya abi maa ya aba abikum rabbi lawla du'aukum su ngeen ma dul woon ñaan man yàlla duma leen faale kon naka la ñuy amee ay aajo naka la ñuy tiitee naka la ñuy jàqee naka la ñuy feebaree di aju ci ñu dul yàlla subhanahu wa taala koo xam ne mënul dara di laqatu ci mbindeef ci ndox jël ndox juróom-ñaari paan nga koy sotti ci buntu kër te billahi wallahi tey mooy bisu ajjuma mooy bis bi gën a tedd ci bis bi ci kaw minbar bii kenn ci ñun ku toog fii ku la ñaanoon ñetti paanu ndox du ñeent da nga naan ko facture bi dafa seer ah non ñaar doy na c'est trop juróom-ñaar nga sotti ko ci buntu kër juróom-ñaar jox ko sax doomu aadama mu naan te doomu aadama tey bu gàddu woon juróom-ñaari paan ñoo ne la may ma ko ci sa facture ci sa robinet boo nee benn ñaar nga gis nga génn bu bu yenoo première bi nga ne kii kii dafa bëgg lu yomb affaire dafa cher ah non non non bu ñëwee ñett doy na nga bëgg a jël juróom-ñaar sotti ko ci buntu kër loolu xel sax nangu ko xel xel rawatina na nga bu ko teg ci ay bida te xam ngeen ne bida li ci yonent bi wax kullu bidaatin dalala wa kullu dalala fi nnaar wala hadis bi wérul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp bidaa réer la bépp réer safara la ki ko def safara nga jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nañu bàyyi xel yàlla bu ñuy tiitee nañu dem ci yàlla bu ñuy ñaan nañu ñaan yàlla bu ñuy laqatu nañu laqatu yàlla suñu ragalee na suñu xel dem ci yàlla ayna allah ana yàlla mbokk yi mais feebar la moonu dal ixwata al iman isa fazita isa fuzta bis bu ñu làqee bis bu ñu tàmmee di làqatu ci yàlla baloo nekk aada ci ñun billahi ñu am yàlla fa man wajada allaha fa maza faqada ku am yàlla loo ñàkkati ku am yàlla mais ñun suñ la nee ah mbir mi day yàlla kese la nga ni dégg ñu ne ah yàlla kese dafa ri tax il faut yàlla ak yàlla ak rek yàlla ak chaque jour loolu ngay dégg yàlla ak yàlla rek déedéet yàlla ak yàlla rek ak jàngeen tey dañ koo tàmm ba da ngay gis ñu ubbi ay rajo di seetlu seetlu gisaane ñaata gisaane kat ñoo nekk Sénégal ay rajo diggante téléphone nga gis ku téléphoné ñu lay seetal ci téléphone te xam ngeen lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci gisaane ku dem ci gisaane wala nga mu wax la dara nga gëm ko yonent bi nee na booy dem bi ngay dem rek bi ngay dem yow génn nga ci lislaam mu ne boo demee ba yegg waa ji wax la nga laaj ko mu wax la soo ko gëmee yow yéeféer nga man ata arrafan aw kaahinan fa saddaqahu bima yaqul mu ne faqad kafara bima unzila ala muhammad kon Sénégal fan lañ toll dañuy julli si rek fekk genn wàll gis ñu ñëpp ay yéeféer lañ billahi wallahi wa taala parce que dafa am loo xam ne soo ko defee rek génn nga ci lislaam yaa fi des foog nga tuubaat foog nga dem sangu ji toog tuddaat baatu seede yi nga nekkaat jullit mais yow yaa ngi ko def ba pare nag jàpp si ñaam képp ku dem ci xërëmkat képp ku dem ci seetkat yow bu yeboo nga xam ne yéeféer nga booy dee di dugg safara loolu bu yeboo mu dugg suñu bopp suñ ko gëmee alhamdulillah buñ ko gëmul alhamdulillah parce que yonent moo ko wax te yonent bi maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha seetal ma sama avenir sama avenir sa avenir kii seet moom moom xamul avenir am mu bëgg a xam sa avenir yow kii seet moom xamul ñaata fan moo ko dese billahi allazi la ilaha illa huwa nañu xoolaat suñu bopp nañu xoolaat suñu pas-pas ku am yàlla lan nga ñàkk ku ñàkk yàlla moom amatoo dara te ñun yàlla lañ ñàkk réew mi yàlla lañ ñàkk ñàkkuñu lenn lu dul yàlla yàlla moo fi nekkul kenn ci ñun xelam du dem ci yàlla wala lu lu néew lu néew ci ay doomu aadama ñooy bàyyi xel allahu subhanahu wa taala ixwata al iman aqulu ma tasmaun wa astaghfiru allaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يا عبد الله كن مع الله فستربح في الدنيا والآخرة إذا كان الله معك الصالحون يقولون يا الله فماذا فماذا فقد من وجدك يا رب وماذا وجد من فقدك man faqadaka faqada kullu shay ya rab wa man wajadaka faqad wajada kullu shay mbokk yi nit na jéem a ànd ak yàlla boo ànd ak yàlla am nga bénéfice àdduna am nga bénéfice àllaaxira boo ñàkkee yàlla perte nga àdduna perte nga àllaaxira ak loo mën a am fa kam min malikin rufiat lahu alaamaat fa lamma alaamaat dajaleel lu nekk amal lu nekk xaritool ak ku nekk soo amul yàlla ñàkk nga lépp boo amee yàlla booy añ te doo reer ngay reer te doo ndékki ñàkkoo dara te bala nga koy xam nga faatu bis boo faatee xam na yow amoo ñàkkoo woon dara parce que ñun li lépp lu nu waral mooy dund àdduna rek moo ñu jay dund àdduna dafa nañu fi ko amul alal amoo dara ko amul ay étage amoo dara ko amul ay parking amoo dara loolu moo tax kenn ci ñun mënatul gore kenn ci ñun mënul am diine ndax am amu àdduna tey àdduna wan nanu boppam ku ci nekk ci ñun li nga am yëpp fi nga koy bàyyi du kenn du ko yóbbu àllaaxira bis bu nekk ñuy jàng di gis ay dars ñu yenu ay nit di yóbbu ñaata ixwatal iman ñu baax ñi xam nañ yoon woowu loolu moo tax ñoom bu ñu jàqee dañ naan yaa allah ndax ku am yàlla ñàkkoo dara ku ñàkk yàlla amoo dara yow yàlla ku la am am na lépp ku la ñàkk amul dara kun ma allah bu fekkee loolu looy libér kun ma allah kon nañu ànd ak yàlla képp ku ànd ak yàlla fa sa taatihi alfutuhaat min kulli makaan yonent yi ba ñu ànd ak yàlla lan lañ gis tey ba ci sunu borom xam-xam yu mag yi nekkoon ci réew mi ba ñu ànd ak yàlla ñu bëri ci ñoom kenn xamul seeni wayjur yu jigéen kenn xamul seeni baay mais ba ñu ànd ak yàlla tey adduna bi yëpp riir na topp leen dañoo àndoon ak yàlla amuñu woon ay oto amuñu woon ay kër amuñu woon dara yàlla rek lañ amoon ñëpp riir topp leen nañ ànd ak yàlla nañ ànd ak yàlla sunu ànd ak yàlla du ñu ñàkk dara mais bu ñu ànd ak seytaan ànd ak àdduna ànd ak bànneexi bakkan nii rek mooy mujj nii rek jullit saa yu ñàkkee yàlla loo ko wax mu def ko mu def ko loolu moo tax ngeen di gis sacrifice yi am ñuy rey ay nit xoolal démb li ngeen dégg ku rey liir def ko ci mbuus def ko ci saak ambale saak bi ba mu rafet ñëw fekk kuy dem mu ne ko am sarax la ndawal moo ci nekk waa ji yóbbu ba këram daan ne doomam am nañu ndawal bu ñu reere ubbi nekk liir moo ci nekk nekk nit moo ci nekk nit ak ñaari noppam nit nit ndawal nit sacrifice yi ngeen di dégg lu ko waral mooy ñàkk yàlla xërëm yi ngeen di gis lu ko waral ñàkk yàlla sangoo deret ñàkk yàlla lu nekk ngay gis ñàkk yàlla yenn saa sax nga gis picc picc ku gis kuy jaay picc nga gis ku jënd picc mi tufli tufli jàng tufli daal di sànni benn waaye jënd na picc taxaw di jàng di tari di tari di tari tari lu tolloog 30 minutes mu tufli ko ci picc mi picc mi mu sànni picc mi daal di tag ci suuf ne nii wàcce laa fi mënul naaw dox bi xool waa ji ba caag ne ko saa waay mu naa mënu ko li nga sëf picc bi dafa diis li nga sëf picc bi dafa diis picc bi attanu ko moo tax picc bi mënul dem wax na dëgg wax na dëgg xoolal loolu bokkaale rek nanu ragal yàlla bu ñu feebaree na sunu xel dem ci yàlla bu ñu amee aajo na sunu xel dem ci yàlla sunu jàqee nañu dem ci yàlla suñu bëggee jàmm nañ dem ci yàlla amma ay paanu ndox di ko sotti amul benn njëriñ facture bu seer xam ngeen ne bu ndox doon am jàmm kenn du tax kenn du tabax palaa jaxaay kenn du ut ay bassin kenn du gasi canal yéen waa Sénégal kay yéen war ngeen xam ne ndox amul jàmm ngir yàlla nag yéen kay war ngeen xam ne borom jàmm mooy allahumma anta salaam wa minka salaam wa ilayka yaudu salaam wa ayina rabbana bisalaam wa adxilna aljannata daaraka daarak salaam kookoy borom jàmm mooy assalaamu mumin almuhaymin al aziz al jabbar al mutakabbir subhanallah ma yushrikun kii mooy yàlla dafa bokk ci turam yi sax assalaam boo bëggee jàmm sax demal nga wirdu ko boog ngay wirdu yaa salaam mais ngay jël ndox di sotti sa buntu kër ndox mbindeef la comme yow yaa ak moom yéen a bokk benn borom waaye moom dafa nangul yàlla yow nga lànk moo tax yow nga tourné di ko bokkaale yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله